waa dem na. Banaya doon naa yaru. daa jël yaru rek téye ko poñe ko. non caat la moo tax caat la moo tax. Ah. caat la. mais tey nu ngeen ànd ak Sidi. ak doole rek ñun moo xam ne moom. ki mooy njàpp. ñun a ah, sama pa sama père ngi. <laughs> njàpp a ngi nii ki dàq ci réew maa ngi nii est ce que nett ba bàyyam di xeex. déedéet la la waroon nett li <laughs> parce que Seydina ah, loolu kenn mësu koo gis. loolu kenn mësu koo gis la demee. mais père dañ koo dugal ku rek jaay jaal waroon.